baas bi ku demul ci ginnaaw baas bi la def dem leen ci ginnaaw baas bi dégg ku demul ci ginnaaw baas bi la def xoolal gars yi xoolal ma gars gars ñoo leen bëri gars ñoo leen bëri gars ñoo leen bëri suuf bi dama leen ñaan rek gars allé gars lépp a ñëw allé gars rek gars gars allé allé allé allé suuf bi allé tuuti rek te yéen a tudd mooy lan léegi fii ngeen di si ginnaaw glace bi bu leen jox kenn bu leen jox kenn bu leen jox kenn yéen nit sa si table bu leen jox kenn leen bi la ñuy joxee voilà na ñëpp dem ci ginnaaw bâche bi ñu jox leen seen dëggu booy faatu benn barab faat benn barab na ñëpp dem ci ginnaaw bâche bi ñëpp ci ginnaaw bâche bi ñëpp ci ginnaaw bâche bi اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. tu es béni, de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté cette nourriture que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. place bi ñëpp di jëloo jooy ndogu ndogu jooy ndogu rek mën na doon ndogu foofu. sama micro laay jooy sama micro. mais parce que taloo ko ndogu li nga tal. ah mais parce que ndogu li nga tal. dogalee ah, joxal kilifa gi man duma dem balaa duma cee dox mer bàyyil ma lay mbëkk rek. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni, Seigneur Dieu béni nous avons reçu de ta bonté cette nourriture fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te demandons amplement de le bénir, de bénir certaines personnes qui ont préparé qui en prendront. Ce qui nous retire, affermit sur nos cœurs, fortifie nos âmes et fasse germer en nos cœurs la joie de partager. Afin qu'à travers nos frères et frères, nous puissions mieux te servir. Oh toi, tu es le seul qui maa ngi leen di nuyu di sant ku nekk ak turam ak santam dinaa leen maa ngi jégalu ndax sama wolof bi setul dina jéem a tuuti ci nasaraan ndax moo ma gën a yomb mais mënoonu neex. wax leen lu baax ci euh, suñu euh, suñu làkk ci wolof wala ci maa ngi tudd Père Jean-Baptiste Sagna nekk congrégation bu Saint-Esprit beneen groupe la ci biir jàngu bi nekk tam euh, recteur bu théologa bu suñu congrégation bu nekk fi Dakar à Wakam C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui, invité, partageant avec euh, la communauté musulmane ce grand moment d'un debout. un grand dogu, c'est le titre qui a été donné à l'événement d'aujourd'hui. Un grand dogu parce que ça nous représente, ça réunit chrétiens et musulmans ensemble. Grand dogu parce que en ces périodes, nous marchons ensemble, chrétiens et musulmans, sur le chemin du jeune et de la pénitence. Je voudrais donc rendre grâce au Seigneur, le Dieu seul et unique, en qui nous croyons, chrétiens comme musulmans. Ce Dieu qui nous a fait et qui veut que nous vivions toujours dans la fraternité, dans l'amour, dans l'unité. Et c'est cette unité que le Sénégal n'a jamais cessé de témoigner. Nous voudrions exprimer aujourd'hui, de façon beaucoup plus manifeste, cette relation fraternelle, un héritage culturel et social qu'il nous faut préserver. Aujourd'hui, c'est la fête nationale la fête qui dit notre appartenance à un seul pays. Et nous savons bien que ce pays a comme devise un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi en Dieu unique, comme je venais de le dire. Donc un peuple, nous sommes unis. Que les diversités que nous formons puissent travailler à cette unité, à la paix, à la cohésion sociale. Pour les chrétiens en période de carême, nous appelons à notre mois du ramadan, c'est une occasion de partager. Partager avec les autres, c'est aussi exprimer que mon salut et le salut de l'autre en dépendre. Je ne peux pas me sauver tout seul, mais je dois y aller avec mon frère, avec ma sœur. Donc que le Seigneur euh, bénisse cette, sur cette assemblée, bénisse les personnes qui ont organisé cette manifestation et bénisse nous tous qui partageons ensemble cette conviction, cette fraternité, afin que chaque jour, nous puissions vivre heureux, nous puissions nga xamante ni dafa nekkoo nag ñu nga xamante ni gëmuñu diineem nekk ci beneen diine waaye da a yaatal téye leen ànd ñoom loolu moo indi njàngale boobu moo rot ba tey mu wane ni ñëpp la islaam sago wane ni ñëpp la islaam yaatal rawatina nag yonent bi jàngal ñu ni mbooleem yonent yépp na leen gëm laa nufarriqu bayna ahadin min rasul ñun ci ñun ku weddi ab yonent yéeféer ngay doon ci ñun ab julit sañte weddi benn yonent mbooleem yonent yi nekk ci kaw suuf yépp yépp lañu yonent bi wax nañ leen gëm nañ leen topp nañ leen digal te buñ leen ŋàññ loolu moo indi suñu jataay bii tey ci diggante islaam ak ñi nga xamante ne mooy ñi dul jullit kon loolu nekk na lu rëy ak bu rafet ñu leen ci gërëm nag di leen ci sant ci lii nga xamante ni moom lañ ñu organiser muy ndogu fekk si ñu ci di ñu ci jàppale di ñu ci ñaax ànd ak prêtre bi mu ñëw teew fii monsieur prêtre ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay tatagal ñu ngi lay ubbil bunt yépp di la dalal fii nga xamante ni fi lañ amalee ndogu bi ak kilifa gi nga xamante ni mooy doomu Serigne Modou Karam Mbacke ni kon ñu ñëpp ñu ngi leen di dalal te xam ni lii amul fenn fu mu xaj lu dul jàmm ndax jàmm mooy bunt bi nga xamante ni bu ubbeekoo ku ne mën naa def li nga bëgg ku ne mën naa def li mu gëm. ku ne mën naa def li mu xam te ku nekk ak jàmmam jàmm jooju nag mooy jàmm ji nga xamante ni ñu ngi ciy woo waa adduna yëpp woo ñi nga xamante ni ñooy politiciens yi ñu ñëw ci jàmm woo nitu diine yi ñu ñëw ci jàmm kon ñu ngi woo ñëpp ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ngi lay nuyu maa ngi leen di fay di rafetlu initiative bi nga xam ne moom ngeen def. waaw dañuy sant yàlla rek mais di wane ni que dëkk bii di Sénégal jàmm kese moo fi am solo te jàmm moom la ñëpp war a ñaan ndax tey euh, ñun am nañ ay parents musulmans am na ay musulmans yu am ay mbokku chrétiens donc tey suñu taamoo le 4 avril suñu jour indépendance woote jàmm ñaan yàlla chrétien ak musulman cohabitation bi nekk li nga xamante ne incha allah day gën a yaatu ñu koy gën a defar di ko gën a rafetal parce que dafa am solo. tey jii waa keppaaru nab yi ñi nga xamante ne tey bokkuñu ak ñoom yoon mais soo xoolee xale yi nu ñu taaroo war a ñëw tagg seen yonent yi nga xamante ne suñu yonent la ñu ñëpp aussi yaa gis loolu dafa am solo tey invité nañ benn prêtre ak benn imam ñoom ñaar ñëpp ñu woo leen fii si kanam léegi ñu ñëw barkeel li nga xam ni ku nekk si dugal dooleem ak ñàkkam donc loolu day wane ni que imam bi bu waxee kàddu prêtre bi wax kàddu ñoom ñaar ñoo niroo kàddu te kàddu yooyu suñ ko boolee c'est pour ñaanal Sénégal mu barkeel ñu fi indi comme bu ñu ko tasaaree mbooloo bi ñëpp mën si jot loolu moo tax ñu initier ko defoon nañ ko daaw ay cotisation kese la woon nag ah, bu kenn foog ne dafa am ku ñu may million wala noonu nit mën na ñëw may ñu 10 kilos mburu kee may ñu canette kii may ñu 200000 kii may ñu leneen leneen ñu boolee yëpp organiser ko defar ko ba ku ne ku ne mën si gis boppam mais xam nga tamit euh, comme ni ngeen ko gisee si partenaires yi ñun mënuñ leen fay ndax ñoom dañu dab si biir yoon bi du ndax ñun am nañ ñu dañu compter si ñun ba pare cotiser ñeneen gis ko affiche bi gis ni initiative bu nice la ñoo dugal si seen xaalis dugal si seen i don ak leneen ak leneen ñu mel ni Marichou nag ñëpp leen war ñaanal parce que moom sama sœur la tey bu ko neexoon bu ñëw mais dafa bàyyi lépp ñëw ak ñeneen mbooloo mi fi nekk ñëpp ñëw dañuy magnifier rek chrétien musulman ensemble mais ñun ñëpp benn la dëgg yàlla lan ngay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi si jàppale mais man message voilà deuxième édition message de paix la et de remerciement ñu xam ni encore euh, lu waay def si weeru koor bi si lu baax yàlla moo la ko mën a fay mais pas ñun ñun dañu jéem rek fii kenn mënul yàlla kese moo mën ñëpp ñi si dugal seen doole maanaam ci liggéey bi dagg mburu yeeg yooyu yàlla na leen ko yàlla fay ñii di séddale ndogu yàlla na leen ko yàlla fay ñi si dugal seen xaalis yàlla na leen ko yàlla fay ñi si def ay vi maanaam képp ku si jàpp rek yow xam nga ko yàlla na la ko yàlla fay si biir weeru koor bi tey suñu voilà ñëpp ñu dabe aussi yàlla na leen yàlla fay ànd nañ seek ñëpp ñu ngi remercier Seneweb Seneweb c'est une plateforme boo xamante ne sénégalais yi fii ba ci diaspora bi ñëpp leen di suivre ñu nekk ay nit yu professionnel ñu mën li ñuy def Brioche Dorée Keparu Nabi euh, chez Kacha yaa ngi gis Marichou Store képp ku amati lu mu war jënd si ay produits yu baax man maa la ko digal de manière solennelle jënd ko si Marichou Store wër leen numéro Instagram fu leen neex dafa lu ma ko publicité mais dafa baax aussi fu ñu ko woo muyu si ak ñëpp ñi si jàpp yàlla na ko yàlla vraiment merci jaajëf